你什么什么干？你说这什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？你什么什么干？

Rızkınla yürüz kapep. Okay. Real. Real. Guys, I'm awake, but fit. The niggas behind with the tools. Guys, I'm awake, but fit. Boy, the pumas you wait and go do. You rap, don't will you man. Nyam, pen, don't will you man. Bella they're up, because I'm not. daay dafa asi gën a tang gën a ñeme coono kàlla tem bi yëpp ni daay teg bët ñoom biscuit sama yoon baba baaba a tegal ma ay biscuit baba nga xamne sa ex du nada yo gumulo ni mala man xana la jokko ñam kolonel sen fit web la ma yóbbu ba kenn du laaj fi fu ma toll seen mbër yëpp la ma daana ba ñëpp di laaj fi nu ma tollu man disku do la ma bëgg man soxla ma gañe fi ay torofe man gëmmu doo lan ma jangane ne bis boo ma tooñe fi na la torox yo kay ma wax na man la kan man kaana la kaana du bari yo kay ma wax na lu ma naru ba yëngal ba yëngal du bàyyi man ngor ak jom lañ ma ngembe moo tax naa la daan te du tax suuf sama mën a raab yaa ko seede moo tax man si kaw yaa ma féetu suuf sànni ma xeer ni nga la su ma ga nga dee dugal si man ni nga risque la tàppet nga man nga si dee médecin colonel béni rey ñëpp jur benn bambay bawal yéen ñëpp ngeen di rey ñëpp Diourbel Bambey Mbacké Bawol yéen ñëpp risque la risque la sànni ma xaar ni nga risque la risque la risque la dugal si man ni nga risque la risque la risque la saaga ma ndey ni nga risque la risque la risque la la nigga bu dee am nga respect waroo jug si ma papa Sama dis nga dugg balaa nga si génn naa la def ko modulo ama yow jëm nga waaye bëriwul ba fi ngeen dee moom soriwul pivo yi bëri dañu plané ñi si des toog nañ dañu ménopause yow xanaa kenn la fi ma man la boy bu ndaw bi tàng na philosophe dem bi yëpp mën ngay sentu ne hélicoptère ma la nga gusto sama sound ngay tëkkale croisé kon man maa yelloo trophée eh? yow mënuloo rap amuloo flow demal nga ñibbi kenn du la introsé man maa fi toog même la du ne tay ku ma wàccee Ousmane Sonko laa ni gësam terminal Macky Sall su may doon ngay naajte kaa ma jox la sa gàcce sama son day génn di màtte fël def ndam su ngeen ko dégloo defet ba du ngeen ko fàtte ni ko naa la duma bis bu ñu ndëkk tase ñun dañuy rab ni ko faale wunu kase fekk dama saa benn jeeg bu ñu passé amuloo pis ni nga kaay soo ma ñemee you jigéen bi down na 69 six ak neuf bu su jiital mu dem su mën nga dugg da nga génnaat kaane nga teew na xam nga sama acte nga dee sànni ma xeer ni nga risque la sama acte nga dee dugal si man ni nga risque la at nga mën nga si dee mezzo colonel veni rey ñëpp Jurbel Bambay Mbàkke Bawal yéen ñëpp sànni ma xeer ni nga risque la suma ak xeer nga dee dugal si man ni nga risque la tapet nga mën nga si dee mezzo colonel veni rey ñëpp Jurbel Bambay Mbàkke Bawal yéen ñëpp risque la risque la sànni ma xeer ni nga risque la risque la risque la dugal si man ni nga risque la risque la risque la I got my night, nigga. This still a, this still a, this still a. Nigga, slow to my seat, nigga. This still a. I'm done music. JMV. Est-ce que cool? Est-ce que cool? Est-ce que cool? Yes, I. On va continuer. cette fois ci dañuy changer décor un peu bi ne gain nga xamné benen façon musique lay def dafa ñeu galvaniser rap bi dafa ñeu galvaniser li gaay yi di def indi style particulier il se nomme tout simplement Mister Bayou Bayam Mister Bayou Bayam est demandé sur scène comme ça du sans affaire yi Bayou Bayam est-ce qu'il est là DJ give me some shit Don't be beat bi Non, non. hey I see him yes Baye Fall Yes, brother. Yes. Déedéet déedéet kon day dëgër gëj duñ ko go deaf. war a nooy ah ah guys njaaram na ngeen def jubel na ngeen def njaaram na ngeen def dégguma leen de all right balance last, sauce ñu xool na na na na Live. sadness I'm a joking. Man for my day, begin a barrier. Hallelujah, sadness I'm a mayor di kode-kode batana sumarere Bagela marere Kalebile Pernah sama tuken Yamanga Danga goodness. su réeré <laughs> eh, est-ce que tàng na na laa bëgg a dégg su ma ne leen cuqu naam cuqul eh, côté bi laa bëgg a dégg si kaw kaw naam cuqul tey cuqu naam cuqul say cuqu naam cuqul ana xale yi bonjour papa eh mu ne loolu bonjour papa quand tu descendras avec eh il foofu leen de yéen seen jamono neexul et si kaw laa bëgg a dégg bonjour papa quand tu descendras eh vais déjouer parmi yéen Merci. boy fawlu jang fawlu dija dako dija dako kay fi acha tay mo nak dija dako ñe partager scène bi c'est le mentor c'est le doyen c'est le grand xam ngeen dija bi xam ngeen dija dako xam ngeen le gas filé gambu jangal bi xamu len ko il se nomme tout simplement Mr. Rako number one quelqu'un qui a beaucoup fait pour le rap du dija dako acha yegalal ma boy bob ñu FATA alaikum Jurbel, Assalamualaikum Jurbel, Jurbel dengan def Yeneng a ngi ci jàmm Yeneng a ngi ci Noël yéen am ay kado. très bien est-ce que fête bi na il faut dire merci à Diaobaj merci à tonton Diaobaj merci tonton Diaobaj Merci, tonton tonton, Yes. Et ah. à vous merci, tonton tonton, tonton, tonton, tonton, bi tonton, pendant toute une semaine. dix jours. donc voilà 10 jours. 10 jours dix jours. jours donc c'est pas facile. alors donc ça il faut reconnaître que c'est un homme bien et à chaque fois. est-ce que vous êtes content d'Urbain est-ce que mu est-ce que vous êtes nice. est-ce que ça roule bien. vous êtes prêts. show. d'accord donc Skype. voilà. alors cette comme ça ñu show aja pengen no man lah kok kayak kode bi man kode bi la fété baye nga mak baye kode bi baye nga mak dama ben reur fofu non ma xol wi joxe côté bi bu fe gagné paré ngeen dama bëgg pap raxu sagal len ma kau len sagal si wala ma tibb fi daf bi acci ko eh kau kaw la si kau si kau si kau si kau ci kau dama di gaay leneen lu bokkum la fi wédi limu dama fàtte ah aja il faut les emmerder d'accord dama jugaani woon Yes. Iya. Jemaah Fatwa. Kontaan naa. <laughs> DJ, bring the eh, shit. C'est à mon tour, c'est à mon tour. Maintenant, Agnew Dam. One, two, three. Dama jagani woon. Nan lu bokk wé. Bu leen déglu, bu leen déglu. Ñu ngi ci kaw. Li man du ñoo. <laughs> Alors, peu. Allez, sans plus tarder On va aller chercher On va aller chercher, bien sûr, un MC qui fait son nombre de chemin, Yes Voilà Ok Il fait son très bon nombre de chemin. Voilà Il a du talent. Voilà Toute sa carrière est devant lui et il est en train de persévérer. Et les bu nooy bi. waaw ah, bu nga xam bu ñëwee ci gaari ñi dañuy ah yeah. yes music music gis na musique. musique lay def day neex. day neex bu neexul rek daf lay tympaniser daf lay tànqal. n'est-ce pas. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir Ils sont tout simplement. Mr. F-A-T-A, El Prezi, Fata, El Prezi de Mandé Charlie, shout out to you, my man. Pamusa, shout out to you. Double man, shout out to you. Sadio Ronan, shout out to you.

Yadi summer best, summer number one, baby. Yo, love. Yo, bu ma full of neck, man but now. Yadi summer sama life summer sama Malona Man wax naa ko ma bëgg na Oh, why yow. Oh, waa yow rek la. Mbëggeel dafa love. You could be my gissy out of my ma love. la. Bul dem qui la mère de mes enfants. Prenez mon moi, je serai tout comme de bon éléphant. Mbëggeel dafa metti dafa compliqué. Baby bu ñuy réeroo on va se communiquer. Yaa di sama bee sama number one baby yow la. Mbëggeel dafa metti dafa compliqué. Baby bu ñuy réeroo on

الويل يسمى صادقان من يسمى صادقان والمرلو يسمى عدنا يسمى عدنا دفنا سيو سخلو مفا